boulangerie pâtisserie Le Cadior mo len di may sen série kooru célibataire ya ma yëkkati tàllal samay laaf yóbbu asam غنيك leen waay nañ jaar waa koñ bi koñ bi moom ñoo gën a naqaree yëpp xëpp man sa way man mënatuma de sa ñu ngi dem boulanger la ko jor wuti xëdd ah fa ngeen jëm ni waaw ah waaw kon jaa ngeen jëfaat yow ba ñame nga fi mo yow man may gëri ngay ragal nga ngi yow may gëri ba ngay ragal ay bu leen xamna ba nga jekk nak man ñu sa ay boy ci leen man nak neexul ba neexul nak waye nak yëtt xëdd nak franchement parler man li la leen mënal li la leen mënal yëtu xëdd billahi wallahi ndaysan xaaral ma jéem a ñëw nag ji ma dem tëdd sa sama gat yii ma jéem leen a am na ma su vraiment je suis un peu fatigué xam nga nag man tamit nag war naa seetal sama bopp damay tëdd ba heure bi du waaj waaj waaj waaj waaj waaj eh mel mbir ngay ko boulangerie pâtisserie Le Cadior moo leen doon may série corps célibataire